gor gor mooy joxe kàddoom dem munoo toog bis bu nekk nga ni diw sàcc la diw def na lii diw def na lii ba ca vey ba ngay waaj a ñëw nga ni yow lépp yaa ko téye sa loxo heure boo ñëwee ni que tey dàq naa ko dama feebar sama ndigg day metti ay xale ñoo ma tardeel loolu lépp pour indi ay waxi kasaw kasaw yàgg dëgg gàtt dëgg ala kulli al Ousmane Sonko dina sëgg taxaw indi rapport bi mu wax wala Sénégal yéen ñëpp ngeen xam ni kii du waxkatu dëgg du waxkatu dëgg sax laay wax parce que bu doon wax dëgg au moins mu fournir preuve yi muy wax mais fitna lay jéem a yëkkati duñ ko ci topp parce que xam nañ ni que fi ñu toll nii nii moom fitna rek la yaakaar pour mu génne ko ci ñun dañoo am intérêt pour que tribunal wax wax liy dëgg parce que amul lu muy wax duñ ko ci topp parce que bëgg nañ réew mi dal duñ ko ci topp parce que bëgg nañ suñuy doom xëy di jàngi duñ ko ci topp parce que gëm nañ yàlla ci ala kulli al dëgg mooy am mais maa ngi jël Sénégal yëpp seede ni ko bii mooy ñetteelu yoon loo xam ni téye nga ko sa loxo loo xam ni nee nga am nga ko loo xam ni nee nga ay yëf ñàkk fayda la loo xam ni yow koo wéetal yónnee baaluma amatul baal parce que munooy saaga ci kaw di yónnee ci suuf di négocier naan ay noo mën naa bind bu bindee bëgguma lu mu def bëgguma moom moo ni woon téye ne lépp na ñëw ni buqeet rapport bi teg parce que loolu mooy wàllu gor bu ko deful du gor bu ko deful fenkat la bu indiwul rapport du nit ku baax bu andiwul rapport soskat la bu andiwul rapport mérité wul jiite Sénégal